DKRTV.com et KhalimaSN.com vous présentent votre chronique d'actualité avec Sedina Sek. ab dof kenn du ne ko yaa moom xew yi ci nga bokk kay la ñu ko war a wax ndax ku dégg kàddu Birima yi ci berki démoo njaay di ay kàddu yu amul benn yar ak teggin rawatina sax nga toog ci digg télévision adduna yëpp di la seetaan nga fa yëkkati ay kàddu xamadi di jaay nii Sénégal yaa fi gën a xamadi yaa fi ëpp fit yaa fi gën a mën a wax ay wax yu ñaaw nga war a fàttaliku rek can bu nekk ci bëy ba muy tëb di dal lu ko raw mi ngi si nag mu ne nemm Sénégal di dem ñuy gën pep suñuy valeur maanaam yar ak teggin ak sutura ak kersa toog si benn plateau télé lañu fa am muy insulter Karim Wade et son père mais pas le père de celui qui les insulte manam saga Karim Wade ak baye ji rek ku leen saga mom ken duko ko laal kenn du jégué ndax am sax saga yoyu wara na mëna ñak bo dé bay tok ci télé war nga mëna tan say kaddu war nga mëna tourner la langue cette fois bala nga yëkëti say kaddu wa ila nak ngeen soppi seen tour émission bobu tuddé ko jakarlo ak noni maki ndax kat gannaaw ci biir télé flat maki lañu koy défé manam TFM ndax ku dégg kaddu ñaaw yi ñu xamni wara na mëna ñak taxaw fi devant les sénégal né Macky Sall bëgg na lek na na lekk Karim wax na ko fii na ko lekk kon xam doo may ma rek dañ ko xool ci biirum nekk mais ñoom dama bëgg a leen non may ma rek may ma rek du lu Ablaye Wade juum mm-hmm. dañ koo waxante te je jure laa la wax Sénégal nga may déglu ñi dëmm yi gën a mag Abdoulaye. non non non Birima Birima attention non mais Birima. Birima non mais Birima. Birima je t'arrête non mais Birima Birima attends non. Birima Birima Birima on est là Birima non mais déglu ma Birima. ñi ànd ak Abdoulaye Wade ñoo gën a grand. déglu ma tu passes Birima. Birima tu passes Birima écoute moi. tu passes mais ce que tu veux waa déglu ma wax moom yow rek la engagé. Birima déglu ma. loolu non mais déglu ma yow rek la engagé dama lay tagg Birima mën ngaa sumé lu la neex. waaw mais dama bëgg. gor bu ko dégloo mag bu ko dégloo kilifa dina bu ko dégloo war laa naw. très bien waaye woo joo xam ko dégg xeet la. ku ko dégg xeet ñu ngi àndal si sa loolu sax le Macky Sall ci Sénégal en réalité parce que di kilifa ci et puis des lan la guerre civile le créé ci il a insulté les marabouts devant tous les Sénégalais sans état d'âme très bien la prison prison prison euh, ci si hmm. mais c'est l'eau très bien ça Moussaga ay dire moi même avec moi andi l'eau. donc vous député créé tak tak ci la jàkkaarloog réew mi di waxi iblis ah, dafay ëpp. mais jeunes yooyu ànd ak seen i xel di nit ñu bon ci réew mi te nga seetlu ñam la. may may gël may gël non déglul wax la. dag maa laaj ma dama xalaat. waay. chacun est libre pour tey do papay jàmbur yaay jàmbur ko saa di ko ku libre loolu may libre. non wax ma loolu. waaw non loolu loolu am na foofu. ci loolu nga ma laaj. li am mooy ay nit ñoo dajaloo ci saal. Mm-hmm. ku leen mag jiite leen.

ci sar nag mbaam sëf sax la. te tënkal ñu ñëwaat si yow. ak xam-xam du benn boole na nga ci boole. dama lay ñaan yow. waaw Sénégal nekk. waaw Ibrahima rek Sénégal bi di ñaan. waaw dama ne na nga ci boole sàcc gi Karim Wade sàcc suñu xaaj. sa baay moo sàcc yow sa baay moo sàcc. sa baay moo sàcc yow. d'accord je suis obligé de recadrer le débat parce que là non non non. Birima Birima Perdón, perdón, perdón.

maanaam aaki moo ko daal ndax kat coow li coow li commission bu ñu dénk wàllu aj bi la ñoom ñoo bëggoon na làq dëgg fasal ay kàcc bëgg nelawal askan wi ci wàllum ujaaj yi fa des ñu war a jaajëfal El Hadji Mansour Diop ndax rek dëgg bi nga xamante ni ak pression bi nga xamante ni teg na ko waa commission bi ba dëgg bi daal di leer loolu la ñuy soxla ci information loolu la ñuy soxla ci ab journaliste waaye taxaw naa diw sàcc la bàyyam sàcc la du loolu la ñuy xaar ba kat Karim Wade boobu ngay tudd yoon dogal na lu mu si dogal a fàtte xam ñun fa leen toll jamono ji loolu moo ñu intéressé jamono ji waaye dara gënul yées invité nit mu toog ci plateau ba jóge fa kenn suñu koy seetaan mënu faa jàngee dara kenn mënu fa jëlee dara du xam-xam du xibaar cey mim réew bu dee nag ab poste nga bëgg ci fondation servir le Sénégal war nga ko war a mën a amee neneen lu dul di yëkkati ay kàddu di saaga askanu Sénégal ndax kat respecté sa baay tàmbale na nga respecté baayu jàmbur média a am lu ñu fa war a comporté woo waaye nag àdduna moom nii la lu ñu la yaree ba ngay tuut tànk noonu rek ngay màggalee amul secret waaye nag ngeen baal ma yenn ñaawaay ci xar-xaru kanam dafay feeñ ba ci làmmiñ bi yenn kàddu yu ñaaw yi nag ba tey waa sénéra taxaw di ko seetaan waa correct ñoom ñi nga xamante ni nee nañoo yaay ñoom ñooy recadrer les journalistes wala sax médias yi ku ci déborder ñoo lay teg ci yoon lu kenn ku mus a taxaw jéem a recadrer kii di birima ma wala boog borom émission bi waaye nag lu ñu naan waxtaan day fekk mu neex borom kër kon bokk ñoom la neex kilifa yi ndax kàddu yi yóbbee imam bu ci kolda ci kaso yu ko yees la Birima yëkkati jagleel ko ku fi nekkoon président de la république waye nak Sénégal moo ni mel tout est permis bu fekke da nga and ak nguur gi cay bii réew Sénégal dafa jot ñu def temps mort jëm a xoolaat jikko yi jëm a waxe ñi jëm a xoolaat ñi fóot xol yi def ko ben fexe bañuy ñuy umandoor koor fexe ba ñuy woree ndoor fexe ba ñuy te bu intérêt réew bi ñu fàttee intérêt personnel loolu mooy jëmale rew kanam mo gën bo toogee ci plateau tànk saaga foofu rek do am jamm wa illaa nag bu fekkee waa ji dalaa nommé ministre conseiller chargé des affaires de la famille wad nga wax ko bopp ngoog gaañi maa ngoog. dina